Euh, dafa dafa am consensus ak yéen maanaam da ngeen déggante pour que mu mën a euh, remuer waat euh, problème mu abindoor démb non c'est juste que dafa am problème boo xamante ne wax nañ ko muy ñun tudduñu sax junior franchement mhm. dañoo wax ci li nga xam ne moo xew ci diggante abindoor ak Viviane ci showbiz ak famille mhm. moom mu dégg émission bi intéressé ko mu ñëw wax li nga xamante ni loolu la jàpp ni Aby waru ko woon def mhm. et loolu la jàpp aussi ni Viviane noonu la war a def mhm. donc du coup sénégalais il faut tamit ñu ñuy ñuy jàppale ñu ñuy jàppale si si si yenn affaires yi mhm. pour muy bañ a am ay euh, ay ay détails après parce que nekkuñu fi pour pour nekkuñu fi pour défendre Viviane wala nekkuñu fi pour défendre Aby mais mm-hmm. am nañu droit euh, ñëw relater leen ay faits yoo xam ne am na ba pare kenn ku ci nekk joxe ci sa point de vue ndax mbir bu demee ba nekk affaire wu ñu ne affaire famille la bu xësee ba génn ci réseaux sociaux mm-hmm. léegi nekkatul affaire famille affaire boo xamante ni ça concerne tout le monde la mm-hmm. du dëgg léegi nag bu ko defee Euh, yëre yi tilim yi nag bu ñu ko génnee ci mbedd mi ku romb sa cofu omo am nga ci paar ku mën a indi képp am nga ci paar noonu la kaa bi demee euh, ñu jël kii nekk si ligne bi bu ko defee euh, ñu daal di tàggatoo allo. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. Fane Sinaare maa ngi lay ziar rek. ngi delloo ziar bu baax. maa ngi lay wootee moom Mamadou Ndiaye laa ñu ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu di nuyu nga toogal soxna Asiba Fall boobu xam ko bu baax a mm. ñu ko jàmbaare comme li ngeen li ngeen wax nag rek mooy solution bi yo rek laa d'accordul dóor ministre daal d'accorduma ma wax dëgg yàlla mhm. d ma ne dóor ministre daal laa d'accordul waaye daal comme ni ngeen ni ngeen ko waxee noonu moo gën maanaam réew mi ni xam ne ñoo bokk dañu am fulay toog ci xoot fulay am fay day bañ a xaraw mhm. ndax dem si géej gi si yenn conditions yi tamit bu ñu waxantee dëgg rek xaru la mhm. ministre yebulu fa kenn président yebulu fa kenn leader opposant yebulu fa kenn am na ay yu fi nekk yoo xam ne nekk liggéey te géej gi itam amul kenn dem si gratuitement. bu sa dem xaalis nga demee am ñoo xam ne dañoo bàyyi seen liggéey am ñoo xam ne dañoo daje xaalis def si te loolu ni Asifa wax Asifa wax léegi mooy dëgg am na qualification yoo xamante ne bi soo ko amul itam boo demee itam neneen ngay liggéey rek. xale mhm. ngay liggéey foofu boo toogee fii ak li nga yor boo góorgóorloo yàlla dimbali la na xale yi delloo si seen xel. et li nga wax noonu tamit yéen ñi nga xam da ngeen di média. Mhm. comme ki sa waa jooju na wax léegi a bari nay xaaxam mhm. mooy ko xale xale bi taxaw noonu mhm. loolu ñooñu ñooy exemplaire réew mi dañu xam ni lu ko waaye def aka waykat lu waaye def na ko tedd mhm. kon nañ góorgóorlu te dellusiwaat seen suñuy xel te yenn parents yi def complicité ak seen doom yeetim nañ arrière bu xam ni àdduna du noonu noonu laa amoon xam naa c'est que da ngeen da fin bi moo dugg rek yam si mu nekk euh, émission Euh, thème boo xam ne thème bu intéressant la moo tax mu ne naa naa naa naa naa maa ngi ko nuyu bu baax. dëgg la Mamadou Ndiaye Thiès la woon dégg nga maa ngi lay fay bu baax sama xarit. merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup Mamadou mhm. Ndiaye. Mhm. nekk fële ca Thiès. Mhm. nekk dirigeant fële ca APR xam naa ministre yi nga tudd nag. ministre yi moo tax mu dugg. dëgg la waa APR yi nekk waa APR la. <laughs> ah d' accord. nee na gëmul guerre boobu man man mm. man que ce muy APR chaque jour ma wax leen ko mm-hmm. nee leen des su ma waxee nit yi dañuy jël fu ñu may canaliser ni kii apériste la mm-hmm. des fois ñu canaliser ma ni ma kii euh, dafa bokk fële waa Pastef wala nangam nangam man bokk ma fenn mm-hmm. bokk ma fenn tey su ma gisee lu waa APR def mu nekk quelque chose boo xam dañ ko war a saluer dama koy wax Pastef tamit kazalika mhm. ñoom ñëpp su ma gisee ñu def loo xamante ne naka sudul noonu la mhm. damay taxaw wax ko parce que man population bi laa fi nekkal loolu rek moo ma ñor jeunesse non ñun sax on est on est on est pas là pour far ci ci opposition mhm. wala parti au pouvoir on est juste pour la population di wax li nga xamante ne moom lay jëmale askan wi kanam ñu ciy dox di ci wax te ñu leen di ñaan ñu bàyyi gaal gi parce que du solution solution bi mën na nekk fii comme mën na nekk fële mais gàllu solution. Mhm. yow Mara yow mi nga xamante ne yaa toog nag. Mhm. duma la bëgg a wax xeeb. <laughs> Mara sama may Mara dañuy bàyyi rek nga mhm. tàggatoo parce que nag euh, l' émission tire à fin mais balaa am ñuy tàggatoo xam naa kii extérieur lay wootee. te mënuñu ko ñàkk bañ a jël faw ñu jël ko allo. allo mes copines. oui chez nous. maa leen di ziar. ñu ngi delloo ziar ak waa Allemagne yëpp di leen kontaane <laughs> ñun tamit kontaan nañ si yéen ala sama càmmiñ tey ñëwul. waa tey idali ñëwul tey dafa daw. <laughs> idali démb may ñu ko dara moo tax tey ñëwul mu daw. waa li nga ko def démb dafa metti nag. ah démb moom may ma dara. <laughs> noonu la waa eh, seen émission bi neex na. Mhm, merci beaucoup. am am na solo trop trop trop man moom franchement. Mhm. Euh, damaa d'accord ak yéen ñett ñëpp. Mhm. parce que yéen tamit li ngeen wax xel nangu na ko ndax dugg si ay géej xarula comme ki génn léegi loolu la wax loolu moom dëgg la. Mhm. ndax euh, tey jii boo balaa nga xam géej moo garaaw. Mhm. nga gis ko dugg si géej ba génn wala nga tiimu géej. ndax gis nga nit mun nay wax nii rek di wax nii rek ak ah, sama zaar gi ñooy nekk ci kaw topp booy ñëw leen fii def leen lii def mais Asiba wax na ko léegi te loolu vérité la dëgg dëgg la. gis nga nit fii man de xaw ma feneen xaw ma la xew Paris xaw ma la xew fi mais li xew fii Allemagne fii. boo amul qualification noo fee am lu lu tax ñuy wax liggéey. xanaa yàlla dimbali la dëgg. te moom la ñuy wax Schwarzarbeit nga xam ne liggéey boo xam te liggéey bu ñuul lañ ko tuddee. fii duñ fi ba pare dëkk bi fii duñ fi jël nit waxuma sax ay ay ay ay nga am qualification mais balaa ngaa ñëw foog nga am ay reg foog nga réglementé ba pare. Mhm. dinañ la laaj contrat dinañ la laaj adresse. Mhm. loolu yëpp boo duggee ci géej gi tey. Mhm. mais loolu foo ko foo koy jëlee ak ban ban ban ban service ngay dem bugg a présenté wu ne da ngaa war a am liggéey. man am naa sama xarit boo xamante ne presque kooku léegi mu am cinquante ans. tànkam du jam Sénégal ndax su génnee dootul duggati ndax si géej gi la jóge jaar Espagne dañoo dugg fii mhm. yàllaa ko dimbale ba mu am dimbalu yàlla mais loolu tey boo jëlee di personne benn nit moo ko cay am mhm. te liggéey liggéey bi muy liggéey jëriñu ko dara ndax yow mënoo am jabar ndax moom bëggul ci tubaab yi ci xale jongama yi la bëgg mhm. ah mais day teg ay jigéen di di yónnee xaalisam te munul fexe ba ab gel bu mu doxaan dinañ la takk si diggante bi. ndeysaan imagine loo xamante ne ay 15 ans 20 ans munoo teg sa tànk Sénégal. Mm-hmm. loolu dafa metti léegi dangay ngay toog si glace bi rek di nelaw ak yeewu si góor. Mm-hmm. moo tax nañ nañ xoolaat affaire yi léegi nag gis nga gouvernement bi. Mm-hmm. man maa doon wax léegi sama toolu maam gendarmerie lañ fa def. te dëgg la waa APR yi ñoo ko fa def. gis nga koñ nga ñu dëkk ñoom kër yee yëpp ñoo ko tabax mm-hmm. li li li Mara wax léegi dëgg la barki yàlla gouvernement bi ku falu politicien ku falu seeni bopp lañ nekkal mm-hmm. man nag fenn laa bëgg a bëgg a bëgg bëgg a yee jeunesse bi mm-hmm. ndax euh, tey boo nekkee fii nii xaw ma feneen de Allemagne gii tubaab bi dañ may laajte yéen seen africain la moo tax ngeen dof la moo tax buñ waxee politique ngeen di xeex lan moo tax buñ falee ay ministre wala président nit ña kontaan tëb dal def fii da ngay xëy suba teel bi di mbëkkanteeg ay ministre yu am métier di liggéey di doxi seen soxla politique dañ koy def nii rek genre fonction la lu war a am rek mais dañuy am métier di liggéey di fayeeku salaire comme ñëpp mais ñun Sénégal fee da ngay gis benn ku ku jegewul sax ministre laa la wax oto yam muy dawal mhm. chauffeur am sax day am kër dëgg la de Afrique si boppam foog ñu am yu ñu changé reculer waat defar gis nga dëkk lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy avancé loo du ay politique politique day gérer dëkk bi mais foog ñu dimbale ñu mel ni borom doole ñu investir ubbi xale yi am ay liggéey suñ bëggee xale yi toog si dëkk bi il foog ñu ubbi ay mhm. société xoolal Fatick gi ñu dëkk ñun mhm. amul sax fu xale mën a defaree suukar laa la wax wala mu liggéey am fa cent franc dara amu fa mhm. te président de la république wallaay ndeysaan dara amu fa xale yi dañoo dawal moto tux yàmbaa ba yàqu barki yàlla waxuma ko mhm. pour yàq de man sama waa kër yëpp APR lañ mais xoolal dëgg laay wax nii mhm. Macky Sall man na ma baal de sama tonton la sama sama mbokk la mais bu ñibbee Fatick dina xam ne lépp dëgg la barki Serigne Saliou mhm. dara defuñu ko fa dara dara mataa Ba man jàngal na ma xam na man nëbatuwuma Matar Ba man doon na sama professeur français yaa ngi may dégg dara ñu ko Fatick dara dara dara dara loolu exemple la rek ba wane Afrique noonu la ñuy doxee duñ def dara. mais man sama booyi kër dañuy xëy di yendu naan la jëndal ma moto ma dawal ñii naan la xaaral ma dem Dakar uti fa liggéey si Ocha beeg yooyu yéen li ngeen fi si émission bi yëpp dëgg la barki yàlla li ngeen wax yëpp dëgg la. dëkk bi dafa metti maa ngi leen di bàyyi seen émission bi neex na trop. merci beaucoup. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup c'est gentil. ayca chez nous suñu xarit la daf ñuy topp depuis Allemagne ñu ngi koy jaajëfal bu baax.